nañ ko doon jàppale démb ak barki démb bañ ko daw bu gisee bu ñu gisee mu nekk ci ay jafe-jafe ñu suturaal ko ndax it loolu la ñuy ñaan sénégalais yi nga xam ni ñu ngi bitim réew ñu téye leen noonu ci biir loolu nag ak fi xew-xew bu toll moo taxoon président Macky Sall bi mu nattee situation bi xam ni fi mu nekk réew mi yëpp war a daje ko looloo tax fan yi yëpp ñun ñëpp ñu ngi gis muy recevoir dañuy woowee les forces vives maanaam ñi nga xam ne ñu ngi ci réew mi te war a jàpp ci liggéey bi mu dajale gouvernement wax nañu xayma la nga xam ni réew mi war na ko soxla pour ñu mën a xeex jàngoro bi ndax doo doon rek xeex jàngoro mais sauver réew ci loolu la ñu moo tax ku jël décision dinañu créer créer benn fonds boo xam ne dina ci def junni milliards yoo xam ne incha allah ministère des affaires étrangères ci wàllu diplomatie dina ci dox lu mu mën ci ndigalu président pour loolu yëpp li ci ëpp bopp lu war a jógee bitim réew en relation avec le ministère de la coopération loolu yëpp mën a mot duggu Sénégal ci alal jooju nag président fàttewu ci doomu Sénégal yi nekk bitim réew ñooñu ñëpp fi mu nekk nii ñu ngi waxtaan ak ministère yi nga xam ne ñoom ñoo yor mbir yooyu pour ñu mën a def une action commune pour mën a jàppale Sénégal yooyu yëpp alal ju bari incha allah président dina ko ci dugal ci fan yi di ñëw